أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن البغي والفحش والبهتان الواجب حمده في السر والإعلان الغني بذاته عن سائر الأكوان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 وأصحابه الهداة المهتدين وعلى التابعين لسنته أجمعين بوكي جولتي ني دغلو كادو ديباو في الاذاعه سفينه اف ام 98.2 تبارك الله في اسكار اربام ني نيو مبولم auditeurs yi ak auditrices yi di leen ñaanal jàmm di tudd turu buur bi nga xam ne yërmandeem daj na kapp àddina tabaarakallaahu yërmandeem ca àllaaxira mu beral ko loxo ay ñennat di ko sant moom yàlla moomu nga xam ni moo digle maandu ak rafetal ci wax ak jëf tere it mbewte akuk mbon aki i caaxaan war lool nag ñu sant ko ci lu biir ak lu yelu ndax moom yàlla moomu ko man boppam la ñeneen kay ñoo mënul seen bopp kawe na lool fedd géewu na ca kennam gamu doon ak kaweem kenn xamul nu mu mel dëgg dëgg dëgg ak nu mu toll màgg na lool tudd naa sellam kawe na it amul benn dend mbaa nattu ngo mbaa nawle ci ñenn ak ci fenn di seede ni amul benn buur budul moom buur boo xam ne jaamu ga njariña nga ca ñakk gaa jaamu musiba rekk lay doon moom mi nga xam ni kenn waru koo bokkaale kenn di seede ni soppem bii di sayyiduna muhammadin jaamam la ndawam la yàlla na julli ci moom te sëlmal ci toftal ci ay ñoñoom yu sell yi te set te sell ak ay saxaabaam yi nga xam ni jub ak jubale rek lañu fi nekk ak ña ca topp ci sunna ñoom ñëpp te leen ko yàlla defal mu mel ni tabaarakallaahu sunu émission jaar-jaaru mag ñi ci lañu dellu siwaat di jéem a nab nabi xam ngeen ni jamono yëpp dañu mujjoon sax daal di mbartal di wax ci li xew muy wàllu aj màkka tabaarakallaahu ci la ñu nekk jamono yi yëpp boole woon nañ ci sax di invité ay boroomi xam-xam yu seen xam-xam màcc ci wàllu woowu ni ki alxames bii weesu tabaarakallaahu sunu mbokk al ustaas Alioune Thiam di boroom xam-xam bu mag teew na fi waxtaan fi waxtaan wu am solo lépp delluwaat ci aj màkka ndax day ponk boo xam ni ponk bu sensible la nag ponk la boo xam ni mat naa xereñe metti na nag tabaarakallaahu moo tax ña nga xam ne bu ñu jógoon jëm ci julli seeni tànk dam ñuy apaat duñu ko yéene yàlla duñu ko tal bu ñu jógee ni ñu ngay aji dina metti ci ñoom lool day dellu illa alal xashain yàlla waxoon ni julli diis na lool metti na waaye nag ñi nga xam ni toroxlukat lañu seeni cër du ca nasax kon tabaarakallaahu loolu lañ doon waxtaane jamono yi yëpp waaye dunjoon nañ ci waxtaan wi ni dafa lëkkaloo ak euh, tabaski ndax dafa mel ni ña dem aji aj jaag tabaski gi dafa lëngoo ñi nga xam ni dañuy def tamato danañu rendi ñay def xiraan itam danañu di ñay def ifraad rek ñoo dul rendi lu dul ñu wàcc loo xam ni ku ko wàcc ci aj rendi war la tabaarakallaahu di ñaani tamit yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi bala ñuy dugg ci émission bi tabaarakallaahu te jàngoro yooyu raam ak yépp yàlla musal ci réew mi بور تبارك وتعالى موخون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات نيونتي بي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون من دينا لين ناتو يالا موكو واخ نيونت بي دينا لين ناتو كي خيف lu ngeen daan bay di ko récolter dund ca ba nawet ba dellu siwaat dootu matati ñetti weer salaire ba ngeen daan fayeeku dund ca ba weer wa deewaat ci semaine lay yem di xool nag ba xam da ngeen ma koy delloo wala da ngeen koy wonk su ngeen ma ko delloo ma teggi ko bu ngeen ko téyee di ko wonk dugal ko ci seen biir xool ma nag moom dinaa leen natto it insécurité kenn du ñemee toog sa buntu kër di féexlu ba xaaju guddi dinaa leen natto it li feebar lu feebar tuut tuut tuut faat bakkan kon tabaarakallaahu yooyu yëpp buur bi waxoon na ko ni nag yonent bi bégalal ñi nga xam ne aggul ci seen xol ñooñu nga xam ne bu leen dara dalee ñu ni ci yàlla lu jóge te ca la ñuy delluwaat tabaarakallaahu sidaaj malik radiallahu taala anhu na ñaan boo xam ne joxe woon na ko wala boog daan na ko joxe ci lu mel nii ndax lu yàgg am ci àddina la jékki-jékki rek yàlla wàcce jàngoro joo xam ne dina jaaxal nit ñi muy faagaagal mag ñi daal di gaaw wut aw feemu ñaan di ko ñaane borom bi ngir yàlla dàq jàngoro jooju mu ñaan gu siiw goo nga xam ne Siraaji Malik wane na ko bi mu fi bawoo ndonoom lu sell li muy sëriñ Babacar si radiallahu taala anhuma gën koo wéyal ba teg ko ci loxo njabootam yi fi nekk tabarakallahu barki demb rek sëriñ Abdul Aziz Al Amin ñu ngi ciy joxe ndigal ñu di ko boole ci ñaan yi te mooy yaa qaadiran yaa muridan yaa qaiman bi nafsihi hada maradun jadidun fakfina min basihi e mu ni ñu jàng fatiha benn yoon di ko def juróom-ñaari yoon eh, loolu li muy tekki mooy yaa qaadiran yow mi nga xam ni yaa attan yaa muridan yow mi nga xam ni yow ay am namm-namm bu tegu fenn yow ay namm yaa qaa'iman bi nafsi yow mi nga xam ni yow ay taxaw temm taxaw sa bopp kenn du la taxaw hada maradun jadidun lii jàngoro ju bees la fak fi naa yal nag ñu fegal min ba si ci ayu jàngoro jooju mu ya yaa qadiran ya muridan ya qaiman bi nafsihi hada maradun jadidun fakfina min ba'si kon jàngoro ju bees jooju nga xam ñu ngi koy tudd di wax eh, Ebola maa ngi faral di wax ci jotaay yi bu ñu Ebola man ma ne albala tuwa yi sax elbala la wax te nattu tabaarakallaahu weesuwul jàngoro ju tar ju jaaxal ñépp kon nag yal na ko yàlla jiña jiña jiña jiñ yóbbu ko ci beneen aalam boo xam ne ñu feebar di wàññi dara newu fa ndax de su wax rek ni yal na ko yàlla génne senegal ndax bu génnee senegal day dugg feneen te fa muy dugg itam mbokk la ñuy doon waaye boo nee yal na génnit Afrique ba tey du doy parce que bu génnee Afrique yeneen continent yaa ngi fi tey mbokk fa nekk doonte boo ne na génn kaw suuf sax am na yenn awalim yoo xam ne ay bindee fa fa nekk yoo xam ne feebar arrangé wu leen ni mu ñàkk a arrangé Sénégal waaye nag boo nee yàlla na ko yóbbu foo xam ne xëy na ñooña feebar du seen problème wàññiwu leen dara wala mu faf ko far benn yoon rek yàlla ko yàlla def. tabaarakallaahu ñu doon waxtaan ci aj mu lëngoo ak tabaski mu nekk benn xew-xew boo xam ni ah lu mët a waxtaane la ci fànn yëpp boroom xam-xam yi rajo yeeg télé yi yëpp ñu ngi waxtaan ci tabaski wàccuwaayam ci diine lu mu doon farata walla sunna ak bu dee sunna nuñ ko faram fàccee tasaare ko lépp ñu ngi ciy waxtaan di waxtaan ci sabab bi waaye daal li wóor ba wóor mooy ginnaaw bu loolu yépp jàllee fitnaal gi nga xam ni mel ne daf ko fitnaal nit ñi te yàlla wax ni laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaaha yàlla tegul nit lu dul lu mu mën nit ñi war nañ ci seetaat seen bopp xoolaat bu baax xam ni farata dafa am sunna am farata boo ko defee yàlla yool la ñàkk gee defit ay duma lay waral sunna boo ko defee am yool bu rëy boo ko ñàkkee def e, ngir télé wala circonstance yu mel ni loolu dara du la ci fekk kon nag sunna boo demee ba wàcce ko wàcc waayu farata ba mu fit fitnaal la dafa mel ni kon yàlla laa jóg kese kese te wax nañ ni sunu maam ju baax ji ci tuubaa nee na lépp loo yenu mu diis lool lool lool nga jóg jóg mënoo jóg ndax diisaay wa nee na boo ko yenni koo jeex ko lala la diisal lool lool boo ko seetloo du doon lu la yàlla sant sa bakkan la kon nag nit day yem ci la mu man te yonent bi nee na yàlla wax na ci xadisal qudsi nee na nit ki nekkul ci lu ëpp li ma farataal ci moom nekkul ci li gën nekkul ci lu gën li ma farataal ci moom tabaarakallaahu ah ñu ne nag tabaski eh, sunna sunu maam Ibrahim la lan moo ko waral xam nga ni day boo jàngee laay ji borom bi tabaaraka wa wax ci suratu safaati aaya téeméer ak juróom-ñett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 وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخر في الآخرين صدق الله العظيم من سونو مام ابراهيم عليه السلام سبب تبسكي ميغي باوو سي جيفم دوري ndax borom xam xam yi dañu wax ni daanañu sufiyanke yi nitu yàlla yi daan yéene yàlla lu ne di ko ko jegee ba ci tuur deret jekki-jekki rek jamono bëgg alal kenn ku nekk di dajalay bëy di dajalay nag di dajalay xar di dajalay giléem nga dajale ko ba ñépp di la ñee nga xëy xëy yéene ko sa borom ren di yépp werale e eh, sunu maam Ibrahima alayhi ñu ni ci boog ci ci wàllu jegeñ jegeñ lu boroomam boobu jël na junniy gàtt rendi leen ngir jege ko boromam ñi di ko yéem mu jëlati ñetti téeméeri nag rendeeti ko ngir jege ko boroomam ñi di ko yéem mu jël téeméeri giléem rendeeti ko ngir jege ko boroomam nit ñeeg malaaka yi di ko yéem yéemu lool ci jooju jëf ju rëy mu dégg ni ñu ngi yéemu ci jëfam jooju mu ne ah yéen de xamul leen waat naa ni man mag laa mage naa naagu naa ci amati doom waaye bu ma aman doom nii ma def gàtt yi ngir sama borom yéene ko ko bu ma amoon doom tey dinaa tër doom ji rendi ko sama borom jaral na ma ko waaye yàlla moom tabaarakallaahu ci nattu jaamam xool ba xam dëggu na ca la muy wax wala gëm na ku ko yàgg def la wala nabluwannakum xatta naalama almujahidina minkum wa sabirin mi ngi ci alquran dinaa leen nattu ba xam jàmbaar yeeg muñkat yi ñan la ak alif laam mim axasiba annaasu an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun nit ñi dañoo defee ni dañu naan gëm naa rek yem ca ma bàyyi leen noonu fokk ma examiner leen nattu leen ba xam dinañ sax ca la ñu waxoon wala déet yàlla jël not ci wax jooju jëmu ni bu ma amee doom attan naa ko ren di naa ko sama borom ba yàlla dogalee Ismaayil juddu ci gàttal ba mu àndeek moom ba ci adul muqaddasa bi xale bi demee ba toll ci ci doom di neexe ndeyam lool neex baayam mooy tollu ci di jàng wax nga di ko gàgganti mu neex toll ci di tëb di yëg ci sa lupp di cëppeelu nga di ko bégee toll ci di jafandu ci sa karaw yu bopp nga di ko kontaane jamono yooyu nag la ko borom bi fàttali ni ko nisaroon nga ko waxan nga ni bu ma amee doom attan naa ko ren ngir sama borom am nga doom waaye bu ko feeñoo ci gént benneelu yoon bi mu kanaf-kanafal bàyyi ñu toogati ba yàggi yëf yee dellu siwaat film ba dellu siwaat di ko fàttali ah yaa ko waxoon ni boo amee doom di nga ko sacrifier ngir sa borom jaral na la ko mu kanaf-kanafal ba ca ñetteelu yoon ba nag mu xam ni lii daal lu sérieux la lu jóge ci boroom bi tabaraka wa taala la te moom ci boppam fàttewul wax ji kon pexe amul keroog bi mu jëlee décision nag moom la laay jooju di jun ju waaye comme ñaanal na boroomam ni rabbi habli min asalihin yal nag ma may doom ju yiw yal nag ma may doom joo xam ne dafay bokk ci saalixiina yi wax nañ ni ba ko Ismaayil nangulee ndigalam rek la xam ne kon ñaan ga nangu na ndax loolu saalix rek a koy nangu mu wax ne ba mu demee ba toll ci war a mën a dox war a mën a yëngutu ca la ko ndigal loolu dikkee pàttaliw ga ba mu amee ci la wax doomam ni ko yaa bu nay yow sama samas ndoom xam nga ci waxinu arab ibni arab dina ko wax waaye foo déggee bunayya rek loolu la arab di wax tasxiir mooy xeetu tuutala tuutal la même bu doom ja nekkoon ponkal sax baay buy woo doom baatu ñeewante la koy woowee ba nga defee ni ki muy woo xale bu tuuti la boo xam ni boo ko ësee mu daanu muy yaa bunayya yow sama ndoom waaw ndax xeeti ñeewant moo tax baay di waxe noonu ndeysaan mas naa dégg ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al muy nettali nee na góor ga dafa ne ci biir néegam dégg ci géttu nag wi am koy rat xubeet xubeet góor gi daan ni moo ana kiy xubbi mu ni ko man la de bàyyi mu ni ko ah yaa fiy kiis cest ma nga doon rëy lu jëf ja ba mel ni ponkal mu am doole lool mooy rat mu ne ana kuy xubbi mel ni ku koy catuwaale waaye ba mu ko ne man la bàyyi mu xam ne doom la mu xam ne wax ji rëy na mu ne ah yaa fii kiis kiis mooy koo xam ne la ngay rat lu tuuti nga cay jota for terme boobu la maam Ibrahima waxee yaa bu na yow sama ndoom lay tekk ci wolof inni ye man day araa gént naa wala araa gis naa fil maanaam ci gént ci nelaw anniye asbaxuka ma di la renti loolu léegi wan nañ ma ko daal daal ma lay rendi fanzur maada tara ah xalaat ci xoolal noo ko gisee xaal Ismaayil tontu yaa abati ba tey it waxin woowu xam nga abi rekk yam ca mooy yow sama baay waaye abati xeetu ñeewante la boo xam ni moom it delloo na ko baayam ci waxin ndax baayam def ne yaa bunayya néewul yaa ibni moom it néewu ko yaa abi def ko di yaa abati boo doon firi ñaari wax yi ci wolof yaa bu na ye mooy yow sama ndoom yaa abati mooy yow baay booy waaw ifaal ma tu'mar defal li sa borom sant li ñu la digal sa tajidu nii insha allahu min assabirin di nga ma fekk ma bokk ca way muñ kon da ànd naag yàlla kon de ci saalixiin la bokk ndax inna allaha maa sabirin ñoom ñaar ñëpp nag nangu lañ sama borom seen borom falamma aslama ba ñu nangoo ñoom ñaar ñëpp Ismaayil nangul boroomam eh, Ibrahim nangul boroomam Ismaayil nangul wayjuram fa lamma aslama ba ñu nangulee ñoom ñaar bañu nangoo ñoom ñaar kenn ku nekk ka nga war a nangul nga nangul ko wa tallahu lil jabin mu daal di koy tëral tërale wet ngir waaj koo rendi nee ba mu demee ba décision bi am nag mu wóor ni dogu na ci nag def li ko borom bi sant nag wa naadaynaahu ay yaa ibrahim ñu ni ko éy ibrahim mu ni xinet mu ni ko xat sadaqta ruya dëggal nga la ñu la waxoon gëm nga ni ci ñun la la nga gisoon ci gént ñetti yoon gëm nga ni ci ñun la jóge dëggal nga ko dinañ la fay de ñiy rafetal nag bu nu àggeeg ñoom fii ba am lu nu wér ci li nga xam ni moom lañ leen sant dogu nañ ci bu jëf ja ak it yéene ja matale na dinañ ko fay ak rafetal ñu wax ne bi nga xamee ni maam Ibrahima waxtaan nag Haajara muy yaayu xale bi njëkk ne ko sama borom daf ma jox ndigal ci sunu doom ji ñu ma rendi ko mu ni ko di ma fekk dey ma nangul la ni nga nangule sa boroom man mi ndeyam sax su la joxe ndigal ci man aw ma bañukaay waxti ma laa nag sunu doom mu waxtaan ak Ismaayil Ismaayil tontu ko loolu itam ni ko defal li la sa borom wax dinaa muñ moo tax ñu ne jàmmi kër dëgg dëgg dëgg fii lay tàmbalee bu way jur wu góor nangulee boroomam way jur wu jigéen nangul boroom këram nangul boroomam njaboot nangul ndeyam nangul baayam nangul boroomam nee na xéewal wàcc fa waaye bu borom kër lànkalee borom bi tabaraka wa taala soxnaam lànkal ko yay na seen doom lankal leen gën naa yey jàmm du fa am nee na keroog iblis am na korwe bu rëy keroog iblis nee na occasion bii su ma ko ratee dinaa perte lépp lu ma doon lijjanti ñu ne Iblis maam Ibrahima la jëkk a commencé ni carfal ni ko doom ni mu neexee ak ni ko yeex a amee ak anam yi nga ko amee tabaarakallaahu nga dem ba magee ne yow kon xalaatoo lu dul doom ji la yàlla jox ci jamono yoo xam ne ñëpp defoon nañ ñu dootoo am doom rawatina sax mu jox la ko nga am ko xale bu ndaw ay gént rek ak ay waxi falaa falaa tax nga ni da nga ko bëgg a rendi ak xale bi xoolal ni muy doxe ak doxin ni mu jekkee fekk booba maam Ibrahima wax na yaay ji na ko solal yére gannaaw bi ko sangee ba mu set peñe ko dafa am fu ñuy dem mu naan ko xoolal xale bi na muy doxe xoolal xale bi bu lay wooni baat bi neexee kii nga ni da nga koy rey ni yàlla la ko digal maam Ibrahima faalewu ko mu daal di wiññee ko waat delluwaat ca kër ga keroog Iblis am na korwe bu rëy dem ca Haajara yaayu xale bi ni ko ah yow seetaan nga Ibrahima bu la waxee ni la sangal xale bi solal ko yére dama ko yóbbu ci feet wala invité invitation paakaa nga te poos ba te mi ngi ak buum lu muy doyee yooyu lu mu la ci wax lu dul daf ko bëgg a rey waxu la li nekk Haajara ni ko man mii ndeyam bu fekkonte nii dañ koo jox ndigal ci man maa koy jëkka nangu kon nag doxal ca àll ba iblis daal di fay départ di jaabante diggante ibrahim diggante hajara diggante mag ismail mu dawe ci ñoom ñaar yaakaaram tas mu daw dem ca ismail xam nga ni maam ibrahima am na éloquence mag la am na xel mën naa tontonteeg iblis hajara mag la amna na éloquence mën naa tontonte iblis waye Ismaël xale la amul xel mu reuy amul éloquence pour tontonte ak mag mu toll ni iblis te xale li nu xam ci mom moy bu jaxé for xër Ismaël pexe mom la def comme amul xel mu reuy mu meuna a tontonte iblis amul éloquence bu doy bu meuna daggé ak mom for xër rek a day xale mu for xeer sànni ko ko mu daw mu jëlati weneen xeer sànni ko mu daw taxaw ci beneen place mu jëlati beneen xeer sànni ko ko mu daw ba sori ko wax nañ ne foofu ci munaa fi ñuy sànnee jamaraat yi ñetti jamra yi ngay gis jamra yooyu bi ko Ismaayil di sànni xeer ca la taxaw ca jamra bu jëkk ba mu joor ko weneen xeer mu taxaw ca jamra ñaareel ba mu joor ko weneen xeer mu taxaw ci jam jamra ñetteel ba moo tax ku fa dem barkeelu ci jéego yooyu ñu ni bi nga xamee ni maam Ibrahima àgg na nag ba ci fi ñuy defee naxar yi ci munaa fi ñuy rende tey jii nga xam ne tey rend yu ñuy rendi ci xat yu yëpp ci ci Makka fa lañ ko defee ca Muna béréb boobu lañ ñu soroon pour rendi Ismaïl nee na bi nga xamee ni tër na ko nag daas paaka bi ba mu ñëw takk bët yi wax nañ ni daas na paaka bi ba montagne yi mu dendal bu ca nee xaas paaka bi montagne bi xar ndax ñawaayu paaka bi waaye nee na Ismaayil bi ko baay bi tëree war koo rendi nee nañ am na yu lu mu ñaan baayam ni ko bala nga may rendi dafa am ay recommandation yu ma la bëgg a jox di la ñaan nga defal ma ko mu ne ko ban la mu ne ko bi ci jëkk mu ne ko yan la mu ne ko bi ci jëkk mooy takkal samay bët te bo mané tak sey beutit nga tak ko ndax li ma moy nga janok man ma janok yow ngay bay may dom nga dima rendi dina dis do ragal tax ma di wax muniko ak ban muniko bi ci takal samay loxo tak samay tank ndax nanguna xetu nangu go xamni beuguma nga teurma dima rendi may fitax di sanni samay loxo samay tank deret ji di tis ci sa kaw sama yol di ko mu ne ko ak ban mu ne ko yére bi ma sol dindi ko nga lem ko joxal ma ko sama yaay souvenir mu di ma ko xoole mu ne ko ak ban mu ne ko te nga waxal ma sama yaay sama moroom yi nga xam ne ñoo daan ànd tolloo ay at bu mu leen recevoir ci jamono yii ndax kon xelam day dem ci man yooyu bi mu ko dénkaanee ba pare ba ñu tëral ko Ibrahima takk bët yi takk bëtam jël paaka bi teg ci put mi wax nañ ni dafa boow boow boow mu te tiit te dagg ak ni paaka bi ñëwee mu wëlbatiku di essayé dafa ni paaka bi dafa ñëwul xandaal ak moom ni ko xaas ca xeer wa xeer wa xotti kooti mu ne ah, paaka bi kay ñëw na wëlbati ku teg boow boow mu te ticc waaye paaka it dafa am ndig day am ndigal li mu ñaw ñaw ñaw ñaw bu ko borom bu joxul ndigal du dagg nee na mu daal di xatar bi ko ñetteelu yoon wi teg ci put mi di mu nee tegg nag nee na nee nañu foofu la borom bi waxee jibril ni ko garaat bu rëy laa la jox ci biir malaaka yi waaye am naa soxla su urgent mooy jëlal xar ca aljanna nu mu gën a gaawee yóbbu ko ron ko ci loxo Ibrahim roc ci Ismaïl soo amee benn retard ba rend am dinaa la dégradé wax nañ ne Jibril gaawaay gi mu gaaw ci diggante jële xar ron ci suufu loxo Ibrahim wax nañu ni gaaw na gaawaay goo xam ne xamuñu dafa rocc Ismaïl ron xar mi wala dafa ron xar mi rocc Ismaïl ndax gaaw maam Ibrahima daal dem na ba paaka bi nangoo dem mu yëg ni mu ngi rendi dara mi ngi rendi mi ngi rendi rendi rendi ba teg paaka bi samp ko ci kanamam tekki bët yi mu takkoon bëtam yi mu takkoon gis muy xar xara tëdd mu xool ndeyjooram gis Ismaïla taxaw dara jotu ko wax nañ ne alhamdulillahi rabbil alamin bi na ci fatiha am na mu fassirun yi wax ne mbooleem ñeenti xaaji cant yi ñeel na yàlla am nañu ko firee ni ñeenti cant yooyu keroog la mooy keroog bi ibrahima ne alhamdulillahi rabbil alamina bi ma rendiwul sama doom te def naa sama ndigalu boroom muy benn sant nee na jibril ni alhamdulillahi rabbil alamina bi ma gaawee ci sama ndigalu borom ci jëli xar aljanna indi ko ron ko ci suufu loxo ibrahim retard amu ci ba li ma ca yéene woon am mayit alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi sant sama borom mu ñaari sant ismail ne alhamdulillahi rabbil alamin bi ma moyul sama ndigalu wayjur te deewuma mu ñetti sant xar mi ne alhamdulilahi rabbil alamina bi ma dee ci ñaar ñuy wéel seen digalu borom te mënoon naa dee ca noos ya ñu ni ñeenti xaaji cant yooyu lillahi rabbil alamin ñeel la yàlla mi nga xam ni mooy boroom mbindeef fi ñu ne bi événement bi amee ba pare nag eh, Ismaayil toog di waxtaan ak sunu maam Ibrahima kenn ku ne di laaj sa moroom ni ko waaw maag yow ku gën a tabe maam Ibrahima ni ko Ismaayil maa la gën a tabe man mi nga xam ne awma dul benn doom fas yéenee jël doom jooju di ko sacrifier ngir sama ndigalu boroom xanaa kay kon maa la gën a tabe Ismaayil ni ko maa la gën a tabe man mi nga xam ne benn bakkan dong laa am nga xëy xëy laaj ma ko ngir sa borom ma fas la ko yéenee jox yëpp nar faa yem képp te yow boo fi desee yàlla mën na laa wërsëgal beneen bakkan bu dul man xanaa kay kon maa la gën a tabe ñu ni jëf jooju moo indi sunna tëbaski bu jamono jooju dellusee rek kuy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa nga war a tuur deret ngir sunna maam Ibrahima boobu tabaarakallaahu nga bokk ci ñu ni tabaski googu nag nga xam ne boo ko seetloo na mu tàmbalee ba nii mu teere ci Ismaayil yëpp yu triste la yëpp lu raglu la léeg-léegi sax nga dégg ku ne bu fekkoonte ni ne rendi nañu Seydina Ismaïl amaana nit ku nekk jullit bu nekk di nga sacrifier sa doom ngir mottali nisar boobu waaye loolu li yàlla wax ni ca laaya ji def ko dey balaa bu rëy la moo tax ca saasa dànkaafu naa ba loolu amul ma wax ni nañu ko jotee leneen moo tax wa fadaynaahu bi dabin azim yàlla wax ni ñu jote ko rendi rendi gu màgg azim ji jubluwuñu sax rëyaayu li ñuy rendi li ñuy sacrifier waaye màggu jëf ji lañ ci jublu moo tax ya ñu cay taamu dinañ ko ci ñëw ci waxtaan wi ñu war ko sacrifier ci ngay xamee ni xar mu rëy baax na giléem baax na nag baax na bëy baax na waaye du caagi nag la ca neex yàlla mooy jëmmi li nga rey na mu toll waaye yéene gi nga ko yéene yàlla moo ci ëppati solo mu ne salaamun ala ibrahim kadalika najzi almuxsinin innahu min ibadina min ay almuminin wa basharnaahu bi isxaqa nabiya min alsalihin xam nga loolu day dellu siwaat ci lii ko ismail wax ni ko euh, man ngaa am beneen doom te man benn bakkan laa am joxe ko ñu ne nag tabaski googu atteem ci diine moo di comme ni ko arab di toftalee bi ci njëkk mooy taarifuha mu ni gàtt la boo xam ni dañu koy rendi mën na nekk gàtt mën na nekk nag mën na nekk giléem mën na nekk bëy waaye daal rend gi liñ ci jublu mooy jegee ko yàlla jegee ko yàlla rekk a tax nag la ca des lépp la ca topp te neex ci bakkan lu ca gane si rek la waaye li nga xam ne moo mooy sabab bi dëgg-dëgg mooy boo koy rendi da nga koy jege sa borom te borom bi wax na ni yàpp wi intéressé wu ma deret ji intéressé wu ma ragal yàlla gi nga xam ne nii ak yéene gi ngeen ma ko yéene mu wóor la ni yow yow yaag sa waa kër mënu leen a lekk xarum lëm mënu leen koo lekk waaye terewul comme santaane naa ko nga daaneel ko sa jabar daaneel sa doom daaneel ngeen re rendeendoo leen las leen ci kër gi te mu wóor ni mënu leen koo jeexal te mënoon faa nekk naan lii ëpp na nañ jël ginaar ndax suur nañu nekku leen fanaan nañ bokk bokkaloo benn béy ndax suur nañu lu dul ngeen jël ko yéene ma ko loolu moo ma ci intéressé kon jege ko yàlla la dinaay faral di waxit ni tabaski dafa bokk ci ndigali yàlla yi neex a nangu ndax ni mu tëddee jëndal sa xar mu duuf rendi boo rendee ba pare nga fees yóotu sa grillage yóotu sa cay ànd waaj lekka lekk ba suur lii ndigal dafa neex a nangu waaye bu fekkonte ne borom bi amaana def ni xar mi na duuf lool te mu ngeen koo rende ba pare ngeen wàqe ba mu xóot suul ko ca yaakaar naa ni na bi mu fitnaal nit ñi ak coono biñ ciy bi ñu ko ci daj ndax mbooleem li yàlla santaane te amul intérêt bu teew a teew nit ñi dañ koy sofental waaye lii day ndigalu yàlla boo ànd ak intérêt boo xam ne ca saasa lay doon loolu la mag ñi daan wax naan tëbaski am ci sa biir am ci yàlla nee na àtteem sunna la bu war ci képp koo xam ne jullit nga mën nga ko te noonu mu la ware noonu la waree sa doom ju majeur noonu la waree sa soxna ku ko ci mën ndax yàlla ko digal yonent bi suratul kawsar fa solli li rabbika wanhar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla joxañ ñi ko rendil te mooy sunu uswa laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa xasana ñu di ko roy topp ci ginnaawam mu roy sunna maam ibrahim mu roy sunnaam yonent bi yàlla daf ko ni maam ibrahim mooy sa modèle ñun munu yonent bi mooy seen modèle nee na ngëneelam moom tabaski yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa amila bnu nahri amalan ahabu ila llahi min iraqati damin doom aadama bisu tabaski deful lenn jenn jëf ju gën a rëy ci man tuur deret su ko manee tuur deret ma gën a lu ne naafilaak woor ak lu mu ci yiw woo mën def fuy wut yàlla nee bis boobu yonent bi nee li gënal yàlla dëgg-dëgg bis boobu moom tuur deret la kon nag kon am na gëneel lu yaatu yonent bi dellu wax ni yoomal xiyaam loolu nga rendi buy ñëw lépp lay indaale te lépp yiw lay doon béjjën ya du des we du des karaw ga du des deret ja du des te maqam bu makka place placement bu kawee kawee kawe la lay yóbbee sa kanamu borom yooyu yëpp dañ koy fule yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bi kulli shaaratin xasana karaw wu ci nekk dinañ ko xayma aw yiw jox la ko yow mi rendi ñu ne ko waaw am na ci xar yoo xam ne moom seen karaw dafa dafa dafa dafa cëkk leen day doon day day nangoo sakkan lool mu ne ba tey lu mu bari bari sakkan ma xamal leen ni karaw wu ci nekk bi kulli shaaratin min a suufi xasana même bu dee leen yiw lay doon ñu ni xikmaam mel na ni tuddoon nañ ko ci taarif bële mooy at taqarrubu ilallaahi taala biha muy fasalli li rabbika wan xar ak qul inna solaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu loolu ci ngay xamee ni lépp lépp da nga ko jël delloo yàlla amoo ci loo ci am nee na nangu gi ngay nangu ni delloo nga ko yàlla bokk na ci xikma tabaski lépp di yàlla jege ko ko def ndigalam nee na ñaareel bi mooy dundal gi ngay dundal imaamul mu maam ibrahima alayhi salaam ca la ko yàlla waxoon ci ismail mu def ko yàlla daal di koy xéewale remplacer ko ko xar yow yàlla defal la teraaga boo xam ni tey jii bu doon dañuy rendi doom nga am na ñu defal la ko xar kon nag xanaa kenn ku ci nekk sa doom bu góor tey buñ la ko doon buñ la noon jaay ma ko ci milliard doo ko jaay kon nag bu ñu la nee léegi kon jaayewuñ la ko mil jëndewuñu ko milliard waaye seetal rek njëgu xar muy sombu tuutee tuuti nga dem jënd xar defe naa loolu soo ko xoolee foofu dina la jaral boko amé rek nga def ko té mu bax néna ñettal bi moy so defee ndigal lolu ba rendi gatt di nga am ndawal go xamni di nga ci mëna yaatal sa njabot bisu feet bi di nga ca feeñal yermande mu jëm ci fuqara wi isha'atur rahmati bainal fuqara wal masakin loola yépp mëna naa ci njariñ yoyu nee na bi ko ñeenteel mooy sant gi ngay sant sa boroom ci limu mu la tàggatal koo xam ne amaana gënoo ko mbindeef la comme yow day noyyi ngay noyyi day jur ngay jur nga jël ko sacrifier ko rendi ko yàlla nooyalal la ko nangu nga rendi ko te doo ci am bàkkaar nga di ko sant ci loolu boobu ci la bokk nee na atte su naam googu tax nañu wax ne xar baax na kuy xar bu góor te ba ca gën mooy mu weex tàll bët ya sax am ay lonet yu ñuul walla tànk ya cat ya yooyu yëpp day gën a day tax mu gën a rafet rek boo ko amee baax na boo ko amul te muy bu góor boo ci am baax na soo ko amul xar bu jigéen baax na boo ko amul bëy bu góor baax na boo ko amul béy bu jigéen baax na boo ko amul amuloo xar amuloo béy yow yàlla dogal na ay gileem nga yar am nga gileem nga rendi gileem eh, nga rendi nag boo amul nag nga def eh, gileem yooyu yëpp dañ koy defe ngir eh, sunna maam Ibrahim boobu mottaliku mu ni bu dee wàllu melokaanu li ngay rendi ñu ne na nekk lu wér nag gàtt boo xam ne patul béjjënam fàqul geenam daggul mën nañu la toléré sax mu làggi waaye bu fekkee làggi gi ràññeekuwul ndax yonent bi wax na ko nee na bu mu làggi ba ba ni bu mu feebar ba ni fàng bu mu ràggit ba ni yooyu yëpp dañ ko ci dañ ko ci corriger dañu bëgg daal mu nekk dëgg-dëgg gàtt bu mucc ayub mu ni su yàlla dogalee nga am bii nag junj naa ko léegi mooy kuuy moo xam ne dafa weex la war bët ya ñuul cati tànk ya it ñuul loolu baax na kon tabaarakallaahu loolu itam foofu ñu bàyyi xel ni wax nañ ci njël njëlbeen waxtaan wi ni laa yukallifullaahu nafsan illaa wusaha yàlla tegul nit ki lu dul la mu man te it damay faral di wax ni tëbaski am tëbaski jafewul li jafe dëgg-dëgg mooy lu ñu yeew ci buntu kër di ko foto walla nga di ko wommat di ko yóbbu ca tele ya di ca gañe dara looloo jafe waaye lu ñu lu ñu tëbaskee rek jafewul ñu ni ñi nga xam ni tamit yàlla baaxe na leen ñu mën a dimbalee ñi muy farate ci ñoom ñi muy sunna ci ñoom ñu bëgg ko te mënuñu ko te bu ñu ko amee def ko nga mën leen ce dimbali au lieu ngay jël un yemale ko ci benn xar l'islam bañul nga jël trois cent mil yi jënde ko xar la des ca wecceet wa nga wut ci yàlla ci beneen fànn ndax ni ngay rendee xar ngir jaamoo ko yàlla jege ko noonu nga mën a génnee njëgu xar joxe ko te loolu ak jege yàlla la tudd ndax fitna nga teggil jullit njaboot gu naroon a tumuranke nga teggi jaaxle gu soxna naroon a jaaxle digganteem ak boroom këram wala mën na jur sax conflit nga teggi woowu yoon yoon la wu gaaw ci àggale nit ci borom bi tabaraka wa taala am ngërëmu boromam léeg-léegi tamit ñi waxtaan di ci juum mooy dañuy daal di attaqué jënd xaru un million attaqué ñiy jënd xaru cinq cent mille di leen jam di leen teg ay baat fekk na bëri na ci ñoo xam ne bala ñuy jënd xaru un million dinañu jaay lu mat dix millions ci ay xar ndax yàlla man loo na leen ko jox ko ay masaakiin jox ko ay masaakiin ba tabaarakallaahu ñu bari am ñu ne nag man ci sama bopp nag lii yéene naa ko sama borom daal di jënd seet xar mi gën a rëy ñu jënd ko te ñooñu ñi ci bari bu ñuy jël seen alal di ko jaay di ko jënde ay xar di ko jox miskin yi loola duñ ko siiwal mën na bañ a siiw ndax dañu koy def sirran di ko nëbb di ko dox guddi bañ nañu ko seqal rek a koy yëg waaye xar mi nga xam ne moom lañ jëndal seen bopp nag yenn saay moo dul neex a nëbb su boobaa loolaay feeñ ñu di leen teg ay baat te fekk am na lu ñu jëfandikoo ca suuf lu nit ñi xamul kon tabaarakallaahu e looloo tamit lu mat bàyyi xel la dinaa ci joxe misaal bu gàtt rek te këru diina yu bari dañ koy def këru diina yu bari boo demee Touba dañ koy dañ koy def boo demee Tivaouane dañ koy def boo demee ci yeneen kër yi dañ koy def euh, sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin euh, daa ci joxe misaal amaana sax ñi mu ko bokkal ñëpp foofa ci Tivaouane dañu koy def waaye ay million lay jaay jënde ko ay xar di ko jox eh, tabaarakallaahu ñi ko yeyoo du daaw mais daaw jéeg jàpp naa ni lu war a toll ci treize million jaay na ko jënde ko ay xar eh, di ko séddale mu nekk loo xam ni yen yen yen bu ñu doon la mu diis lool ndax Seydi Hadji Malick daf ko daan def ñi nga xam ne yàlla daf leen nattoo néew doole Siraaji Malick daf daan def a ah, li ko yàlla baaxe mu bokk kook ñoom bi sëriñ kër ñëwee alaaji Mansour ñëw alaaji Abdou ñëw ñoom ñëpp ñu yaatal ko kenn ku ci nekk li Siraaji Malick daan def nga di ko def ba tabaarakallaahu ñooñu bu ñu fi bawoo seen jaboot yi fi nekk kenn ku ci nekk boo demee yaa ngay waajal noo ña nga xam ni seen maam ak seen baay ñu jëkk ñaa leen daan jox nga taxaw teem pour ndono loolu nga yenu ko léeg-léegi sax ci taalibe yi am na ñuy ñu daayira yoo xam ne dañuy wax ni nag sëriñ saa ngi ñuy bëgg gañe ndax bu dee ñoom ñu ngi jël seen alal di ko jaay di ko jëndee xar di ko jox miskin yi te nu nekk seen jaboot nit seen gannaaw nuyu tamit war na noo jéem donte mënuñu comme li ñu man nu am sunu mbote soo xam ne dinañ leen ko yóbbante ñu joxaaleel nu ko masaakin yooyu yàlla defal nu yiw loolu mooy dégg looloo tax ngeen di dégg léeg-léeg yi yenn daayira yi di laaj xaru tabaski daayira yi ni dañu ko yóbbu ca sëriñ ba te ñoom ci seen biir it ñoom sëriñ si dañu koy dañu koy teralante soo demee Tiwaawan eh, sëriñ Saaliwu Mbàkke ba ca ña ko jiitu sax dañuy jël ay xar di koy yónnoo ci ñi ñu bokkal ndono Tiwaawan googu dañ fay yónnee ay xaru tabaski di koy yónnee fépp ba ci kii fi nekk tey di xalifa euh, Cheikh Sidil Mokhtar dafa continuer loolu di jël ay xar di koy yónnee kilifa diine yooyu nga xam ne ay xolofaaw lañu ci dëkk bi tabaarakallaahu ci réew mi bokk ndono waa Tiwaawan it dañ koy def muy xeeti teraanga yoo xam ne dañu koy jëflante looloo tamit mu dellu ci tahqiqul wahda baynal afraad dundal ak bennoo ak xam ne ñoo bokk lépp dañ koy def defee nag foofu ku ko man tamit nga dimbalee bu la sa doolee àggul ci jënd ay xar joxe eh, domp ci sot la bokk dinaa koy faral di wax léeg-léegi nit ni ma waaw nu may def ah, amaguma xar de ma ne ko ah baax na incha allah dinaa jéem su ma mënta am xarit jéem a am béjjén rek te mooy ki nga xam ni tey boo amoon da ngay yëkkati cent mille francs jox ko mu jënd xar wala nga jox ko cinquante mille mu jënd lu xar ba tuut tuut boo ko amul. yow sa doole ci junni la yem wala ci juróomi téeméer a ah, bu ko xeeb jar na soble nga jox ko ko waaye bul ko xeeba xeeba xeeb lool ndax eh, inna allaha la yudiu ajra al muhsinin lu mu tuut tuut tuut yàlla du ko sànq dina ko dina ko fay su ko defee kon e ñu xam ni borom alal yi nañu xam ni jamono na du réy ngi nii ndax ñu ci baree bari njaboota leen jaaxal ndax bu doon tey kenn koo xam ne sa njaboot yëpp màgg nañu ba toll ni yow doo am problème boo ko amul di nga mën a waxtaan ak ñoom waaye xale xamul lu dul la bàyyu moroomam def na ko na ko bàyyam def mu nekk yërmande bu nekk sa diggante sa njaboot ak ñeewante bu nekk sa diggante ak ñoom loolu moo togg fitna ñu baree baree bari moo tax ñi leen tane mën leen a dimbali nañu leen dimbali dëkkandoo yi soo gisee dinaa ñëw ci ba tey ci tabaski yi ko war a jëfandikoo dëkkandoo yi dem nañu ba àgg ci boo amul doole jox ko xaritam boo au moins boo rendee nga am loo ko ca cëral looloo tamit ah nga bañ koo puukaréewoo bañ koo bañ caawan na lenn lu dul rek xam ne waroon na ko te mënu ko war nga ko jàppale nee na li nga xam ne sopp nañu ko ci rendi gi ndax xar mi tamit du caagi nag da koy jël rek dal di koy song rek daaneel ko rek daal di ko ni fatet rendi noonu dafa am ay principe mu ne sopp nañu boo dee rendi sa xar nga jubale ko xibla soo ko ma nee nag am na ñaan gu gudd gooy ñaan bala ngay rendi waaye comme dañu wax tudd turu yàlla rek moo gën a semple boo mënul إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين دال دي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله دالدي رندي والله بسم الله بسم الله بسم الله والله أكبر soo rendee pare nga ni allahuma hada minka wa laka yàlla de lii ci yow la jóge woon te yaa ko moom mu ngoog waaye comme ñëpp bokkuñu ko man te bokk na ci li ñu gën a sopp mooy ki moom am tëbaskeem jënd ko mu rendil ko boppam su ko mënul rendi bu ko rendloo baax na nga tudd turu yàlla moo tax ñaan gi comme dafa gudd ah nga wax bismillah ñetti yoon rek ndax dañuy wax sax ni doo ci wax rahmaani rahim ndax rahmaani rahim day junj mbirum yërmande te paaka moom bu xasee tegu ci put yërmande amatul kon jaratul nga koy tudd nga ne bisimilahi rek nee na itam boo ko jëndee ñetti xa boo ko rendee ba fees ko li gën a rafet li gën li sunna wax mooy nga xaaj ko ñetti xaaj moom ndawal gi benn xaaj bi yaag sa ñooñ ngeen lekk bu leen neexee lakk bu leen neexee togg bu leen neexee baxal bu leen neexee supp moom daal yéene ko moom nu mu leen arrangé rek benn xaaj bi ngeen def ko beneen xaaj bi ngeen jox ko joxe ko maye ko maanaam seen dëkkandoo yi ngeen dëkkal te amuñu amuñu moyens yi wala ñi ngeen dendal te bokk leen ak ñoom diine waaye bëgg ngeen leen a motiver ba ñu xam ne li ngeen nekk ak tab rekk la ak mbaax ngeen may leen ci bi ci des ngeen tudde koo sarax ñetti xaaj yooyu lañu war a def tabaski mi bu ko defee nag ñu bari mënuñu loolu mënuñu loolu euh, duñu saraxe duñ ci maye waaye xir rek la ndax comme loo ko téye téye wóor na ni mënoo koo téye weer day jeex te yàlla moom loo ko jox bu wutalaat eh, nit a xër rek waaye joxe gi amul benn wàññin te it gëj a ñam gëj a lekk ndawal gu toll ci yonent bi ni la lii saraxe ko lii maye ko nga lànk yaakaar naa jamono bii dalatul kenn ba ñuy dàq ba ba ba jamono tolloo ci bala ngaa ñam yàpp da ngay dàq kéwal ba jàpp ko door a lekk yàpp xanaa sax jamono boobu daw raw waaye jamono bii moom ni yàpp yombe nga rend sa gàtt ñu ne la saraxe ci maye ci nga lànk te li la koy won mooy bu jub ñu baree baree bari dañuy xeeb sax frigo bu ndaw nga mu wóor la ne dina leen jaral lu nekk pour jënd ko te denc rek kay tax te ba ñuy bëgg mooy firigo bu rëy lool lool lool kooku li muy firi mooy yàpp wépp lañ bëgg a denc ci koo xam ne dañ la ne lekk ci saraxe ci maye ci xër rek ñun itam euh, ki la koy feesal bu moo ko mënee feesal sa bopp baax na boo ko mënul feesal sa bopp ka la koy feesal doo ko fay ci ndawal gi mu fees ba pare nga daal di dagg baat ba wala nga dagg tànk ni ko am wala nga jël der ba faye ko wala yeel ya déedéet loolu kenn du ko def da koy fay da koy fay li ngeen waxaale bu fekkee daf la koy defal gratuite nga xam ne gratuite la la ngay génne di ko jox nga ni ko nag lii moom man dama la koo sarax wala dama la koo may waaye nag doo ko tuddee ak pay na leer nañ ba mu wóor ni li nga koy jox du pay man ngeen koo ñàkk a waxante ni patt di ko jëflante mu nekk ak pay ndax yàlla gëmul nenawul waaye doo ko doo ko doo doo ko doo ko fay ci yàpp wi man nga koo fay nag bu ngeen waxaalee ak pay bu la nee dama la koy defal rek sama diggante yow la fayeeku ma la dara d'accord bu la neexeet man nga koo may boo ko mayeet mun la jéggal naa la ko amul problème waaye daal doo ko ci fay der bi tamit kenn du ko jaay yonent bi nee na man baa jilda adxiyata adxiyatihi fala adxiya lahu képp ku jaay derub tabaskeem amoo tabaski bul jaay man nga koo saraxe man nga koo may waaye doo ko jaay beneen bi ci des mooy li ñu wax ni waaw benn gàtt rek ndax doy na ci kër ñu rey benn gàtt rek jabar jaa nga fa ak doom yàgg li ñëpp ñu rendi fa benn gàtt ci kër gi loolu mën naa nekk mi ngi dépendre ci moyens yi rek yonent bi sallallahu alayhi wa nag am na lu mu defoon mooy mës na génne ñaari xar rendi benn bi ni bii samam ki la wëlbati ko rendi bi ci des ni bii nag sama xeet ba ba buuf tey wal ku ci tabaski dab te mënoo ko dugal naa la ci biir tabaski nii mais man damay wax toujours ne tabaski moomu nu yonent bi dugal nu lang ca daanaka moo gën a wér sunu tabaski yi ndax tabaski moomu yonent bi moo ko waajal ak yéene bu sell yéene ko bakkan dugg ca sunu bakkan dugg ca ndax sunu yoon new ca sunuy pexe dugg ca ngistal dugg ca yonent bi moo nu ko yéene def ko digganteem ak boroomam mu sell kon bu nu ca langee rek bu nu ñàkkeem ki bu nu langee ca tabaski moomu rek baax na moo gën suñu tabaski yi nga xam ne nii léeg-léegi di ko triandé léeg-léegi di nga leb naroo koo fay léeg-léegi sax am na ñoo xam ne dinañ dem ba jël juru xarum jàmbur di ko tabaskee ah, benn mbokk du tudd turam waaye ku reelu la daf ma nettali nee na ma man eh, daaw sama borom moo ma yónnee tabaski dëgg dëgg dëgg dëgg moo ma yónnee ma ni ko nu mu la ko yónnee mu ni man daal dama toog ba ñu ni suba la tabaski may xin xini mané na doxantu ba daral ma ñew ci daral gi xin xini ba samay bëtt di di di di di di taa ah na dem ñibi néna fi ma taxaw ci tali bi rek di xaar super rek néna bi super bi garé samay tank ak bu ben xar dawee ci daral gi laxas samay tank apprenté ni ma ah waaw góor gi fo jëm mané ko piken la jëm rek mu daldi di xar mi dugg ak mom ma dugg fekk xar mi ci bi ba ci arrêt bi rek ma wàcc mu wàcceel ma xar mi ma xam ne sama borom moo ma yónnee xar <laughs> ma ni ko ah yow de si tabaski moom yéeme na lool nee na daal moom bi super bi gaare ak bi xar mi daw di dugg ci yeel yi benn la apprenti bi ni ko pas foo jëm nee na ma ni ko Pikine laa jëm nee na mu daal di roof xar mi dugal ci biir super bi ma dal di yéeg fekki ko mu ne sama borom moo ma yónnee xar te kat façon yu gën a salte yooyu sax di ngay gis koo xam ne noonu lay amee tabaski da ngay gis ko yeew xaram sonn ci lool ba ñu ni suba ki ginnaaw suba la ñu jël ko xëy xëy du gis xar ma ñu naan xar ma sàcc nañu ko te ka ko sàcc wóor na ni benn mu dem tëbëskee ko wala mu jaayee ko lu yomb kon nag e, ñu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal rendi woon na xar ne ñu ngi ko yéenee aw xeetam ba buuf tey wal ñi nga xam ne am nañu yéenee tabaski te seen doole àggu ca beneen bi ci des te sew-sew la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko recommandé raam ñoo xam ne bu ñu jëndee xar ñu ngay sang ñu ngay jël peñe di peñe ñu ngay lelli weya waaye yonent bi nee na weeru tabaski bu xësee ba feeñ moom xar mi nga xam ne fas nga ko yére tabaski na nga sàmm karaw gi bul dagg karaw ga bul dagg wey moom kay nag mën nga sang waaye nag yooyu yëpp bu ko ci defante parce que wax nañ la sànq ne la buy dekki booy dekki yomal xiyaam karaw yi benn du manqué weyeeg yax yeeg béjjën yeeg lépp ay yiw lay doon kon nag contradiction amul ci weer wi teru ñu ne la bul dagg karaw gi bul dagg weyi bul njoof béjjën yi boo yëpp bu ko ci def bul gat bul taay bul taay baal noonu te sew-sew la am na ñoo xam ne dañuy xëy di sang rek jël seen peñe seen seen di boros karaw gi rocc ki ruus rek waaw te day wàññi sa yool kon tabaski dulu lu simple njëlbeenam raglu na njëlbeenam triste na te du fodu caaxaan dinaay faral di wax it ni jigéen ñi nañu soutenir seen borom kër yi dimbali leen parce que yonent bi nee na jigéen jigéen ci jëkkër mooy jigéen ji dimbali am ci jamono nee na bu jamono gemboo di mbër def signature sa jëkkër nee na jafandul ci sa ndiggul jëkkër jàppale ko ba mu daan jamono waaye nee na bépp jigéen boo xam ni da ngay dimbali jamono ci sa kaw jëkkër nee na doo jigéen ju baax te mooy bu jamono gemboo dëkk sa jëkkër nga lëngoog jamono daan sa jëkkër te mooy loo xam ne diis na lool te xam nga ci dara ndax koo xam ne danga ngay da nga luye weer wi dee na nga fara war a fay sa loyer ah ouverture yi école yaa ngi nii jub si fourniture yi dañ ko war a préparer ñiy jàng ci école privée yi inscription yi dañ ko war a préparer loolu yépp nekk farata xaru tabaski yi tamit nekk na boo xam ne war nga ko def xale yi tamit nga war leen a wutal yére loolu lépp bëgg see bokk see bëgg-bëgg yow ci sa bopp yow jigéen ji fokk nga am loo taxawe ndax comme boo amoon xar may ko sa boroom kër ah, boo teggi woon sa natt man ko cee dimbali waaye yooyu yëpp amuloo ko yow it na nga seetlu ni nga koy jàppalee mooy lu ci luñ ci gën a mën a épargner wàññi ko woyefal ko na nga ko ci jàppale ba xelam gën a dal waaye dinaay wax ni satangal sa jëkkër sëkkatal ko dépression ci moom muy daw di daw di dugg-duggi ñi ma la yendu ci kër gi ñi ma la fanaan ngir xar moo xam ne wóor na la ni benn fukki junni la ko yàlla dénk nga imposé ko xaru cent mille francs fu ne mu daw dugg fa fu ne mu daw dugg fa fu ne mu leb fa ba yàlla dogal mu indi xar mi nee naa leen bu xar mi tëddee bu ñu ko rendee ba xar mi tëdd xar mi tëdd na waaye jëkkër ji tëdd na kii paakaa ko tëral kii ay naqaru ko tëral ñu ne kon jigéen ñi nañu ci bàyyi xel lu ñu mën a dimbale seen borom kër ñu dimbale ko ci woyefal yooyu woyefal bi mën na delluwaat ci yére xale yi am na jigéen ñu bari pexe yoo xam ne bu seen bu xew jub seet te ñu war a xottil seen doom dañuy fexe ba jël ci yére yi rek lenn yóbbu ci cuubkat ba yëkkati som bu néew kooko daal di soppi couleuru yére ba defar ko ba mu rafet ba mu baax mu tàpp ko paase ko defar ba mu jekk tegal xale yi bu boobaa ñu sol ko xale yomb naa nax loola chargé la boo teggil sa jëkkër yow ci sa bopp itam ah soo fasee yéenee ni fokk mu wutal ma lu ma sol man na koo togg na waaye yow tamit man nga def lu ak muus rek te mooy la ti la yàlla waxoon xar na fi bu yutiku na su ñu suñu dee xar mi fees ko teg ko sa loxo nga yendoo wàjjil sa jëkkër yendoo ne fi wetam toute la journée génnoo yaakaar naa ne doo puukare woo di sol looy wër di génn ci mbedd mi pour kenn gis la comme ci biir kër gi nga nekk nag sañ sa biir kër yomb na nga teggil sa jëkkër charge boobu loolu tamit ci la bokk kon jàppalante gi woyefal mbir yi defe ko ni ngeen ko mane it baax na kon tabaarakallaahu tabaski dëgmal na démb laa koy wax ma ne yaatu la ndax ñi ko amul ñu ngi ci fitna waaye même ñi ko amit te nit ñi yaakaar leen wër leen am ndiiraan te mënuñoo daj ñëppit ñu ngi ci fitna kon yëf moom fépp la matale waaye nag tabaarakallaahu buñ ci boolee xel ak xereñtu yàlla mën nañ noo defal tawfiix sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si nee na bu dul won xel nit du yilif dëkk bu gaynde nekk kon tabaarakallaahu ñu delloo lépp ci xel delloo ko ci sagesse delloo ko ci yërmande delloo ko ci mbaax surtout nag dimbalante bi am na ay ñu yàlla baaxe ñoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi góorgóorlu lu ñu man di jàppale ndax bu fekkee dañ ko tudde wut yàlla rek wut yàlla ci miskin mu jaaxle lool tu mu te it bi ci gën a tee am solo mooy sadaqatu sirri mooy li nga xam ne da nga koy def te sa loxo ndejoor nga koy defee sa loxo càmmooñ yëgu ko xam nga nit mën naa dimbale xaru tabaski ci koo xam ne xamoo ko te fexe nga ba jox ko xar mi te xamul ni yaa ko ko jox ndax tey jii ki nga dajeel moo xam da nga yor sa enveloppe def te la nga ca def mu romb la di waaxu di waxtu mu wóor la ni kee xam ni mi ngi ci fitna nga dab ko ndànk dal koy roof ci poosam wala nga jox ko ko wan ko gannaaw dem laajoo ko adresse am waxoo sa adresse joxoo ko sa carte de visite mu dem nga dem loolu ku ne xam na ne liggéeyal yàlla la liggéeyal yàlla la kon tabaarakallaahu ku ko defit yàlla daf lay dollee fay te bu ñu maandu woon kenn ku ci nekk la nga ëppal nga wàññi ko jox ñi nga tane addina bi jàmm rek a fi nekk liy ndi fitna ji mooy kenn day giijal ña ca des ndóol man fuluti nee na dafay dem di seeti benn wëllëreem bu am alal nee na muy ñëw ba ci yoon wi fekk benn waaju tëdd di ko di jooy-jooy yu metti di weñaaru nee na ma ni ko lan la mu ni suma biir day metti ma ni ko lu koy metti mun ma xiif xiif lool dama xiif ñetti fan lekku ma nee na ma làmb sama poos génne la ma yor jox ko nee na ma dem ba fekk sama xarit boobu nga xam ne boroom alal la ma fekk jabar yi wër ko di ko upp muy bitërñiku ko laaj te lu ko dal ñu ni biiram day metti man leen lu tax ñu ne dafa lekk lépp man leen maanduwul su fekkonte ni dafa wàññi li muy lekk kële ma romb du deeku xiif ba biiram di metti moom mii tamit du deeku du deek metit ndax biir buy metti ndax lekk ñu ne kon nag jàppale nit ñi ca la yàlla jox yiwu yàlla rek la ak yool dinaay faral di waxit nii am alal alal ji bari lool te kenn mun laa waxal lu baax te it doon na jekk te jaadu bu yomal xiyaamee bu ñu la ne ràpp poñe ni la sa alal ja anamu nga ni di wa ko lekk su boobaa sax doo wéet waaye sa borom ni la ràpp poñe ni la ana alal ji ngay xiin xiin yi mënoo tudd kenn ndax yow rek yaa ko wiitew loolu gàcce la di ci desit yor alal ju dul jeex dal ko ci banque yi moo xam biir réew mi la wala bitim réew ba miskin yi muy silmaxa yeeg lafañ yi ñëpp bokk réunion ni nan jàpp ci yàlla bàyyi ko yëfam loolu musiba la benn góor gu baax nee na boo gisee mag ñu jëkk ñi gënoon a gudd fan ku ci am alal da ngay gas pax ba mu xóot nga dugg ca pax ma yenu alal ja lu ñëw lekk alal ja bàyyi la fi nee na nitu léegi li tax ñu gàttu fan ku ci am alal dangay ngay gas pax ba mu xóot jiital alal ja taxaw ca lu ñëw lekk la bàyyi fa alal ca mu ni moo tax kon milliard du wërsëgu kenn nit ku ko yàlla jox da laa séddaleloo moo xam nga dégg moo xam nga ñàkk dégg waaye milliard du wërsëgu kenn nit kon alal ji occasion yii lay xaar liggéeyal ci yàlla comme dërëm boo am yàlla dina la laaj foo ko dugal dina laaj foo ko jële laaj la foo ko dugal kon boo ko amee war nga cee am loo dugal foo xam ne bu ëllëgee mu layyil dërëm yi nga xam ni fa mu dugg la dem na kon bu ko defee occasion gi nii ci ñi bëgg a liggéeyal yàlla azaka bii lislaam santaane buur bi tabaraka wa taala wax ne nañu koy génne yàlla dafa yéene nit ñi aljanna te yéenewu leen musiba waaye boo ko xoolee ni mu leen ko sante ñaar téeméer yoo denc ren ba déwén amoo bor amoo ci soxla ñun la yàlla la génne ci juróomi dërëm yaa néeg li nga fi dégg ci ay ordonnance dégg fi ci yoo xam ne dañu leen bëgg a génne ndax luyaas dégg fa mbokk mu jaaxle dégg fa koy leb yooyu yëpp nga gëmm ko takk sa takk sa bopp rek takk say nopp ba at mi dellu siwaat xaalis boobu nekk fi yaa néeg waaye ñaar téeméer yu nekk génne ci juróomi dërëm bala ngaa dem safara soo ko lànkee génne nag bu ëllëgee dinaa dajale lépp def ko benn barre de fer soy ko di la ko ñaas nan la musal la nga dencoon mi ngi nii te bu ko defee yaakaar naa ni foofa bu ñu fa àggee dellu siwaat ginnaaw di génne azaka du mën a nekk kon daal loolu yàlla wax wamaatu ni wama tuqaddimu xay anfusikum min xayrin tajiduhu lépp lu ngeen jël dépensé ko ci yoonu yàlla di ngeen ko fa fekk dellu wax nii la masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba nee na misaalum ki nga xam ne day def ci yoonu yàlla day def lu baax dafa mel ni ku jël benn fepp dugub gasum tooba ji ko ca mu sax di juróom-ñaari gub gub bu nekk doon téeméeri pepp noonu la yàlla lay fulandee def ko misaal te li nit xam waaye lu ko ëpp sax lay def yàlla lu ëpp loolu lay fule ndax bu dee bu dee gubu pepp suuna boo ko jiyee pepp suuna wa sax di juróom-ñaari gub gub bu ci nekk boo xoolee pepp suuna gubu suuna boo ko xoolee waññal pepp yi ëpp na junniy pepp demal nga seet bu dee bu dee bu dee dugub bi ñuy wax tiñ wala basi wala konga saale bu mu ci mën a doon nga xool gub bi boo wàññee pepp yi romb na téeméeri pepp nga xool mboq nga ji benn doomu mboq mu sax di juróom-ñaari gub gub wu ci nekk ñu ni téeméeri téeméeri doom nga xool ko mboq boo waññee doom yi ëpp na ko moo tax wax na ca catu aaya ba ni nu ko neex la koy fulandee mën na koo ëpp mën na caayam kon su ko defee noonu la yàlla fure ki nga xam ne day def lu baax kon boroom alal yi tabaarakallaahu ah nañu bàyyi xel ni ah jamono bi neexul e tabaarakallaahu nañ ko delloo yàlla nag nañ delloo yàlla te buñ ci tudd kenn e, loolu loolu ëpp na sax di wax waaw jamono ju naqari yi wala xaalis bu ñàkk kenn du ko askanale doomu aadama joo xam ne day jaaxle ni yow day am ay problème ni yow day dépense ni yow kon jamono bu naqari kenn du ko askanale mbindeef yàlla la soob mu doxale nu ko neex nañ ko ñaan mu teggi ko te bañ koo jiñ kenn ndax nit bu mënoon téye wërsëgum réew ba réew ma amuñu dara moom ci boppam day ama ama ama ama am ba giijal waaye comme ku romb e tabaarakallaahu loo romb tey jii e bëggoon koo moom am na koo xam ne tabaarakallaahu ma ngi ko tiim waaye tamit koo romb di ko ñee am na ku romb yow it di la ñee kon su ko defee tabaarakallaahu jamono bu tollooti fii nañ ko delloo yàlla rek te ñaan ko te bañ koo jiiñ benn nit bañ koo askanale benn nit nañ wax rek nii jamono bi a ah, xaw na metti loolu ku ne sañ nga koo wax waaw li sëñ Moussa daan wax naan jamono jaa ngi xiif xiif lu ñu togg bër gi ko fuuf waaw tabaarakallaahu kon eh, tabaski daal mu noonu dëgmal na beneen point bu ndaw bi may tëjee nag te ay constat la yoo xam ne def naa ko mooy tabaski bu dikkee ñu war a bégal njaboot yi eh, xale mooy nekk mag te xale yi dañ ci am day seen feet ñuy faral di génn di dugg ci kër yi di wax ne dañuy ñaan déwénal foofu dafa am matuwaay yu bari yu mag ñi war a jël ci surveillance boo xam ne ñi nga xam ne dañoo xaw a saa dañu xaw a amuk euh, kàccoor eh, sécurité wu xale yi nañ ci bàyyi xel ba fa ñuy dem muy jéggi taleeg dem booru géej distance yu sori yi nga xam ne réer mën naa am problème mën naa am yooyu yëpp tabaarakallaahu ñu di ci bàyyi xel waaye bi gën a sensible mooy xale yi dugg si ci biir kër yi di ñaan déwénal te tabaarakallaahu léeg-léegi ñu leen di xaw di maltraité di leen jànne ak di leen toroxal damay faral di wax ni ñaar téeméer yi nga wecceeku ay juróomi dërëm def ko ci benn pot teg ko ci sa bopp lal xale bu dugg ni dañuy ñaan déwénel nga jox ko juróom amaana bala muy jeex jant so nga noppalu te ñaar téeméer bariwul bu ko defee nag li tax man leen dafa sensible mooy xale yi dañuy xam mag ñi te mag ñi duñ leen xam bi ci toppit bu ñuy génn seen kër di dem dañuy wax ni papa wala yaay maa ngi dem kër sam papa diw fekk na yow ci sa bopp yaa yaa xàmmeewul xale yi waaye xale yi xàmmee nañ la su ko defee bu ñu duggee rek nga dal leen di buub dañ koy nettali même bu ñu ko nettaliwul léeg-léegi sax du ñu agsee seen yaay def leen di laaj fan ak fan ngeen dem ñu ne demoon naa sama kër papa diw demoon naa kër sama tante diw demoon naa kër sama bàjjen diw lu ñu la jox mu ne sama papa diw jox na ma fukki dërëm sama papa diw jox na ma nangam waaw sa papa diw nag mu ne moom de bu ñu agsee def ni dem leen fële waaye topp leen fële aw ma aw ma wecce te yow xàmmee woo xale yi yow xàmmee nañ la su ko defee nag eh, loolu mën naa nekk dem ba nit ñagas-ñagas ndax doom dafa jege way juram bu eh, ko defee loolu ñu di ci baral di bàyyi xel xale yi boo leen xamul te ñu xàmmee la yow dangay ngay ànd ak teey ak dal bi ci desit mooy xale yi ñëw say doom dem nañu te ni ngay traité doomu jàmbur yii bu ñu ko traité sa doom du la neex kon su ko defee maslaa xale ba bis jàll bis bi jàll lu yomb la nga jël benn 1000 francs wala mille francs wecceeku ko def ko ci sa benn pot rek toog bul ca seet koo xàmmee koo xàmmeewul yow daal ku ñëw rek joxal dara mu dem nga rafet ci su ko defee nettali ba dafay rafet tabaarakallaahu loolu ñu bari duñ ci bàyyi xel te fekk léeg-léegi mu yàq lu baree baree bari léeg-léeg nga gis ku ci traité benn xale xale bi dem nettali ko yaayam du la ko wax waaye dina la ko xoole te fekk danga ko xàmmeewul ne boo ko xàmmee woon sax amaana doo ko def mais comme xamoo ko te ñoom dañ lay xam kon tabaarakallaahu yooyu tamit dañ ciy faral di di bàyyi di bàyyi xel sew-sew la yoo xam ne ah bu ñu bëggee ànd bi rafet dëkkin wi rafet lépp sell kenn bañ a weeru dañuy rafetal jëf e, sëriñ Cheikh si nee na njobbaxtanu diplomatie mooy foo nammee wax lu ñaaw nga wax fa lu rafet njobbaxtanu santé muy wér-gu-yaram mooy lekk lu lekku lekk lu ñu war a lekk nee na mooy njobbaxtanu santé kon tabaarakallaahu yooyu nañ ci bàyyi xel soo gisee tamit ñu jukki waxtaan wi ndax tabaski ah dëgmal na nit ñi taluñu dara waaye nag tabaarakallaahu mat nay waxtaanee e, imaam yi léeg-léegi dañuy ñëw ba ci jullikaay bi nga dégg imaam bi xutba di waxtaan ci xar mi nu mu war a mel ma ne loolu day yee fitna ndax wóor la ni fii ci jullikaay kenn du fi jóge jawal daral ga di jëndi xar nit ñi jënd nañ ba pare ba ma nga ñu yeew léegi kay nu ñuy def yàpp bi kay ak nu ñuy rendee lañ leen war a wax waaye wëlbatiku naan leen xar mi dafa war a mel nii dafa war weex dafa war a duuf loolu ci koo xam ne wóor na la ni la muy jënd jënd na ko ba pare te du déparé waat fii jëm daral ba kooku na ngay yee fitna rek ndax boo fekkee yow kii la mu jënd moom la dooleem toll yow nga def ci sa bayaan waxin woo xam ne nii moom ci boppam day découragé te la mu am loolu day yee fitna bu ñu xësee ba ñëw ci jullikaay bi li mat a wax mooy nan la ñuy rendee boo rendee xar mi noo koy def loolu la ñu war a waxtaane ci jullikaay waaye kenn du waxtaane ci jullikaayu it am xaar nu mu war a mel da yëfit na rek kon tabaarakallaahu loolu tamit ñu bàyyi ci xel bi ci des itam mooy yéen yàlla dimbali ba ñu am benn julli jullit yëpp ànd nekk benn daaw jéeg ñépp a julleendoo benn bés àddina bi yëpp man leen bu ko nit doon fexe nag di def ay séminaire pour àddina bi yëpp julleendoo du sotti bu ko bu ci yàlla àndul waaye ba mu ko nammee kenn sonnu ci fexe na ba ñëpp àddina bi yëpp bokkandoo même jour boo xam ne dañu ko julli foofoo tamit dinaay faral di leeral ci bu wuute julli amee xale yi ñooy gën a am problème ndax dangay gis xale bu daw ndeysaan ni dagat ci kër daal ni dañu ñaan déwénal ñooñu ni ko nun de tëbaskeegunu jànni leen gàttal ndeysaan xale yi daal di ni te sax daw dem bu ëllëgee ñeneen ñi nga xam ne ñoo tëbaski seeni doom génn daw dugg ci kër ni dañuy ñaan déwénal ñu ni ko nun tëbaski lañu démb xale yi dañuy mujj dañ leen di ñu togg fitna boo xam ne nii ak xale ni ñu ko war a warmaale ak ni ñu ko war a terale ndax da dul xam ëllëg lu mu nar a doon loolu tabaarakallaahu dañ ci bàyyi xel maa ngi ci daan nettali benn misaal euh, mbër ma la ñuy wax euh, falang bi mu bëree ba war a bàyyi bëree te ñu di ko tappal médaille Abdou Diouf di ko tappal médaille président Abdou Diouf di ko wax nag naan ko yow falang euh, bi ma nekkee ndar di jàng nekk élève nga ne ci arène bi di bëree dama daan toog ci miiru arène bi di la seetaan ngay daan di am victoire may kontaan e falak daal di jël micro bi ni ko nag booba nag su ma xaman ne yaa nara doon président de la république su may bàkku dama lay tungoom waaye loolu noo koy xamee yow kay koo dajee rek warmaalal teralal xamal ni mën naa doon lu nekk kon tabaarakallaahu loolu moo di woon tabaarakallaahu li ñu indi woon tey pour waxtaane ko ak euh, mbokk yi e, di ñaan yal na yàlla defal ñu dégg ak topp yal na yàlla dolli ñu tawfiix ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci dëng rek xam nga nit moom moo matul lu ci jub rek borom bi tabaraka wa taala moo moo ñu baaxe li nu ci jublu daal mooy e, yeete ah li sëriñ Moussa Kana li may nelaw nelaw du tee ma yeete li may gëlëm gëlëm du tee ma woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngir réer bu dee fee yeete dootul yàndoor waaw loolu rek la mu ne amaa mu ne li may nelaw nelaw du tee yeete li may gëlëm gëlëm du tee ma woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngir réer su dee fee yeete dootul yàndoor kon tabaarakallaahu ñoo ngi ñaan yal na yàlla dolli leen jàmm dolli leen tawfiix ba alxames ak jàmm ci waxtu wi ah incha allahu ñu continuer sunu émission yal na yàlla dolli ñu jàmm dolli leen ko ñu ngi sant Thierno Amidou Yoroban di ko ñaanal yàlla mi ngi waaj pour dem Makkatal Mukarrama ci aj gi ndax dafa yore agence euh, Safina Hajj nga xam ne nii tabaarakallaahu moom itam mi ngi liggéey liggéey bu rëy saytu ay xujaaj di leen orienté di leen jàppale ba seen aj tegu ci yoon tabaarakallaahu sunu mbokk yu baax yi fii départ di dem ak ñiy waaj yal yàlla teg leen ci yoonu jàmm soxna Alimatu Mbow nga xam ne ku sopp rajo bi la mu ngi noonuy waaj pour dem eh, tabaarakallaahu makkatal mukarrama ajuma bi la mbooloo daje jàngal ko alquran defal ko ay am daax wala yëpp ñëw borom xam yëpp daje fa E, e, sunu yaay Awa Fall bu dairatul muxtafina momit dem na tabarakallah ak suñu jigen Fat Diallo ñom ñep ak sunu jigen bu baax be nga xamne yalla nga dogal mo gañee won bi bi ci sunu daara ji muy aje Magat Ndiaye momit tamit mi ngi ci tay sunu mbokk Omar Cissé tabarakallah ak Cheikh Diop tabarakallah ñoom tamit ci jàppale Serigne mustapha si bu Serigne abdou Aziz ñu ngi waaj pour dem màkkatal mu karama kon nak yal na yàlla nangu sen acc ñu bañ fa rir bañ le xana fat le recommandation bi ma joxone be le rek yi may wacc pour dem Màkka te góor gi ni ma du wax nañ ne yonent bi nee na boo nee jakar lo kaaba gi te go tan lool lañ la genn ñaan lo ca ñaan yalla nangu ko man ko waaw jang na ko mu ma boo ñaan man ko ah, xana alal wala guddu fan wala wér-gi-yaram mu ma loolu ci ñaan comme ben ñaan lañ la tan bo ñaané yaram kese sa sakkanul boo ñaanee gudd fan kese te wéroo yoroo sakkanul boo ñaanee yor te wéroo guddoo fan sakkanul ma ne ko nu may def mu ne comme dal benn ñaan lañ la tànnaloo boo nee jàkk ci kaaba gi boo ko ñaanee yàlla nangu ko soo nee jàkk ci kaaba gi neel yàlla lu ma la ñaan yar na ko nangu bu paree nag nga dem ñaani lu la neex ñaani gudd fan ñaan alal ñaan wér ñaan lépp loolu nag mag mu baax rek ko xam moom la si daaji wax ni lu ma mas a def am ca ndam mag mu baax ma ko digal ku jige mag ñi rek ñu dégg la dara kon tabaarakallaa yal na yàlla defal ñu jàmm suñu directrice ñu ma ba ak ñoom Matar ñoom Alsaan yal na yàlla jàppale leen ak mbooleem ñiy déglu rajo bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.